ñu daje fi nak pour waxtané li nga xamné moy sét naka lañuy fexe ba taxawayu secteur microfinance mo xam ci walu acteur yi la wala mo xam ci walu ñiñ ko jaglél naka la wara nek taxaway bu muccu ayib te bu yàgg moy performance ak durabilité biñ doon wax sank jàpp nañ ne ci walu ministère bi au-delà de accompagnement bi ñi def formation war ci bok moy renforcer capacité équipement dina ci bok ak euh, modernisation également dina ci bok session yi nak ñu gën ko jaglé li ñuy wax euh, institution isolée manam ñu petite taille yi nga xamné ci gox goxati yi la ñu nekk tay lu tollok témèr ak juroom fukki dirigeant ak euh, acteur dinañ leen former ci autour de sept modules dina impacter à peu près 40 SFD. Euh, module yi ñuy tàggat tamit dina nek ci performance au système financier décentralisé bi gestion des risques bi gestion des impayés euh, recouvrement bi ak walu protection des clients ndax lool lépp dafa nek lo xam ne tax euh, li ñu bëgg ci microfinance bi ñu am ko acteurs yi ànd nous ñun donc ñu ñu fas ne ko défal ay fan ci